mbokki téléspectateur ak internet yi mu fàttewul Bichri di am mbégte bu baax a baax ak kontante saa su nekk bu waxtu bi jotee ñuy feggoo ak yéen eh, ngir jukki leen li nga xamante ne si ëttu yéenekaay yi dañ koy daal di xëyee saa su nekk ci seen i njëkk tey di yemoo ak alxamis eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2024 dañuy daal di ànd ak yéen eh, doore ko ci li gën a fës bokk na ci fitna ak jalt jalt ji nga xamante ni nemmeeku nañ ko rek ci wàllum njàng mi ak njàngale mi rawatina foofee ci université Assane Seck yéenekaay yi di info quotidien di ma xamal ne coow la moom moo fa daal di am ak jàppal bàyyi ci diggante takk der yi ak étudiants yi coow lu metti loolee sax moom moo daal di jur euh, jamono ji solution bi nga xamante ne si rek recteur ba daal dina koy tekk moom moo di tëj ràpp université bi euh, ba keroog jàmm fa daal di dellusiwaat bi li ëttu yéenekaay jàpp ni loolee solution bu radical la maanaam solution bu metti boo xamante ne si recteur ba daal dina koy tekk bi li ëttu yéenekaay ne ko amul yaay nàmp maam pexe amul loolee la jàpp ka ni euh, jamono ji ak fi coow li toll ak situation association yi ak jàppal bàyyi yafa am euh, ba ñu yàq fa ay matériel yu bari mu daal di rek jël ab dogal rek ngir daal di koy tëj euh, ba yeneen jëmmi jamono bi la ëtt yenekaay di ma àddu ko ni rek bu yemoon foofu mu neex ndax recteur ba ginnaaw bi mu tëjee euh, lii di université yi ba may leen ab délai gën ngaa gàtt fi ak ajjumay suba ji képp koo xamante ni danga nga daal di logé woon ci boobule université di Al Assane Seck ba nekk ci Ziguinchor nga delloo caabi te delluwaat ci say mbokk ba keroog rek jàmm di ci dellusiwaat donte ni sax rek eh, ci rek en ligne noonu la ko daal di fësalee bi li ëttu jënekaay eh, di xam ne rek ne loolee sax moom moo daal di juru étudiants yi ne du ci boppam la ñu rek bi la ñuy xeex eh, loolee droit la seen àq ak seen yelleef maanaam la ñuy xeex dund ak recteur bi nga xamante ni moom moo daal di jiite foofee ca Sigicoor ginnaaw ba mu tëjee université bi yemul foofu ndax nee lépp lu jëm rek nekk ci ay amical loolee daf ko suspendre bi la ëtt yéenekaay ne déedéet bu doon loolu kay étudiants yi duñu wax maanaam dafa tas bépp amical boo xamante ni si rek amoon na foofee rek ca université bi bi la ëttu yéenekaay di info quotidien moo daal di rek addo nu ñu mel Adama Sow di ab coordinateur bokk rek foofee rek ca étudiants yi la mu daal di addu rek moom moo di euh, patt pataaral du ñu ko def di seetaan autorité yi ñuy def lu leen neex maanaam mbir mi ñoom lu ñu ci bañul duñu ko ci ban euh, maanaam daal la ñu daal di addu rek moom moo di dóor fayu contre attaque ci boppam la ñu fas yéene def ak dogal bi nga xamante ni euh, recteur ba daal dina ko jël ngir tëj bi la université bi la ëttu yéenekaay Gueye moom moo daal di rek addoo ni ni mel ñu jàll ci benn ëttu yéenekaay noonee la ñu fay fekkee coow li ba tey di li quotidien eh, dikkaat ci tension bi nga xamante ni moom moo daal di am ci université Assane ba nekk ci Ziguinchor bi la ëttu yéenekaay dikkaat ci décision radicale eh, bi nga xamante ni recteur ba daal dina koy jël ngir rek tëj lu ni mel eh, moom ëttu yéenekaay bi di laaj ndax rek dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ni ki démb rek ci conseil de ministres bi xanaa recteur bu université daf ko daal di déggul moom ëttu yéenekaay bi ne bu ko déggee tamit du lool Euh, ndax dogal ak décision yi nga xamante ni jël na ko ci tëj université bi bootee na lool ak li nga xamante ni si rek moom la njiitu réew mi daal di wax yéenekaay bi dikkaat euh, ci ki nga xamante ni moom moo daal di jiite wàllum njàng mu kawe mi di docteur Abdourahmane bi la ëtt ni mbir mi ci boppam euh, fi mu toll nii moom moo koy bëgg ëpp doole ak ay kaam ba tax na ëtt yéenekaay bi jàpp ni loolee sax moom moo daal di tax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye taxaw jamono ji temm ngir dooleel ki nga Diouf mi jiite li nga xamante ni euh, moom moo di université ak coow jalt jalt ji nga xamante ni moom moo daal di am ci diggante moom ak étudiants yi bi li ëtt yéenekaay moom moo ko daal di fësal euh, loolee sax moom moo daal di tax mu dikkaat ci dogal bi nga xamante ni recteur bu université san Seck daal dina koy jël ci tëj boobule université ba yeneen jëmmi jamono waaye yemu fa dafa daal di tas rek bépp amical boo xamante nii dafa daal di nekk ndax dafa jàpp ni eh, coow li ak fi mu toll waxtu bi tembe loolu kese moom moo nekk saafara bi en relève ñëwaat di ci daal di addu dikkaat ci conseil des ministres bi ak ñetti mesures phares yi nga xamante ni eh, moom jiitu réew mi teg na ko ci taabal bi ngir ñu waxtaanee ko bokk na ci daal di nay sant ab gouvernement am eh, ngir rek ñu daal di taxaw càmbar lépp loo xamante ni dafa jëm ci université yi ngir sànce yi ñu daal di koy mën a wéyalaat lu jëm rek ci rek restaurant yi ba ci logement yi loolee yëpp euh, moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na rek nañu ci taxaw daar daar euh, ngir lépp mën a yem ba rek étudiants yi daal delluwaat ci seenum njàng bi lee ëttu yéenekaay en tout cas coow la am euh, foofee rek nga xamante ni moom moo di université Al Assane Seck ba nekk ci Ziguinchor jamono ji rek daal di nañu koy tëj ba tax ñu sàkku ci élèves yëpp wala étudiants yi ñu delluwaat ci seen mbokk ba yeneen jëmmi jamono bi lee ëttu yéenekaay addo lu ni mel yeneen dogal yi nga xamante moom jiitu réew mi président président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko ci conseil des ministres bi eh, nee nañu daal rek boole daara yi ci lépp loo xamante ni dafa daal jëm rek ci wàllum éducation ak budget ba mu war a àndal eh, bi ëpp yéenekaay ni a gis seen bopp eh, ci doxalinu mi ak ni muy defee waaye beneen ba mu ci yokk moom président Bassirou Diomaye Faye moom moo di rek nañu daal di làq fu yàq yëgul ñi nga xamante ni ay handicapé lañu warmaal leen teg ci tamit aar leen loolee bokk na ci dogal yi mu daal di jël niki démb rek ci conseil des ministres bi ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay le quotidien moom dafa daal di dikkaat euh, ci contestation bi nga xamante ni si rek daal dina koy def di ay revendication ci sociale bi ñuy dund jamono ji moom moo di coow la ca université ak yenn ci ay grève yu ñu nemmeeku moo xam ci secteuru santé bi euh, wala rek ci éducation bi la ëttu yéenekaay dikkaat ni jamono ji rek kii di président Bassirou Diomaye Faye ak ilimaani jëwriñam Ousmane Sonko dañoo daal di taxaw temm rôlu sapeur pompier ngir rek euh, fay daay gi nga xamante ci biir réew mi bi le ëttu yéenekaay moom moo daal di rek fësal euh, li ni mel tiir bi ma ngay euh, ci dogal yi nga xamante ni jël nañ ko foofee rek ci iniversité ba ngir tëj ko loolee rek moom tiir dafa jàpp ne euh, taxawaay bi nga xamante ne président Macky Sall daan na ko def bu coow amee ci université yi loolee rek tànk yu ni mel la kii di njiital Pastef Ousmane Sonko jël waxtu bi tembe ginnaaw ba ñu rek tasee amical ya nekk rek foofee rek ci université Al Assane Seck donte ni waxtu bi tembe ñoom étudiants yi nee nañ contre attaque ci boppam euh, la ñu fas yéene def ndax duñu seetaan recteur ba mu toog fa mu toog di def lu ko saf noonee la ko fësale euh, ci bile ëttu yéenekaay di Tribune Quotidien Vox Populi dikkaat kane euh, jamono ji njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo yor cëggul guyam ngir installé assemblée nationale bi nga xamante ne ginnaaw résultat provisoire yi fësaloon nañ ko bu yàggul dara moom ëttu yéenekaay bi ne loolee la koy dëggal conseil constitutionnel moo daal di jël rek raw gàddu gi foofee euh, di rek ci assemblée nationale ak euh, limu député yi nga xamante ni euh, daal dina ko fay am vox populi ba tey ma ngay daal di àdduwaat ci njëgu gerte gi nga xamante ni njiitu réew mi daf ko daal di yokk ba mu egg rek ci 305 francs loolee rek aatuma réeroon dafa daal di feeñ ba di ci daal di àddu moom moo di Moustapha Cissé Lo nee na bi def na lu mu xamul ndax njëgu kilo gerte gi loolee mu def ba yokk ko ci 305 dina ko réccu tekki it dina ko gis Euh, bu fekkente ni dafa jàpp yërëm baykat yi wala mu am yéene jàppale leen nee na mënoon na ko defee euh, ci geneen anam waaye yokk gi mu ko yokk dina metti saf sàpp ci ñoom loolee di kàddu yi rek euh, Moustapha Cissé Lo ci bile ëttu yéenekaay di Vox Populi la mandat ñëw di samp ab laaj kan moo war a jiite assemblée nationale maanaam rek nekk rek tête assemblée nationale bi li ëttu yéenekaay laaj la boo xamante ni jamono ji ñu bari rek moom la ñuy samp laaj ndax Ousmane mooy dem moom nday mbili gi dem jiiteel ko boppam doom wala am na keneen koo xamante ni eh, xelam nekk na ci moom ngir mu jébbal ko lu ca mën a am salam bu conseil constitutionnel eh, joxe na rek ndam li nee na eh, kii di rek Pastef bu ko neexee jamono ji mu samp li nga xamante ni si moom moo di rek assemblée nationale bi la ëttu yéen kaay ni wowatuwul mode fast track rek ci boppam la ñu koy def ndax loi de bi faaw rek ñu voté ko laata ñuy egg ci 31 décembre loolee le mandat moom moo daal di àddu installation de la quinzième législative moom ëttu yéen kay di ci àddu ko ne eh, jamono ji cëggal guy gi ci loxoy ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi eh, di président Bassirou Diomaye fay ca la nekk maanaam waxtu bi tembe eh, ginnaaw ba ñu ko joxee majorité jox ko li nga xamante ni si rek moom moo di pouvoir ñu confirmer résultat yi fi mu toll nii moom la ñëpp di xaar ngir mu jàpp date bi nga xamante ni ci lañ rek euh, war a taxawalee lii di assemblée euh, nationale si du quotidien fësal ko source a dikkaat di addu euh, ci coowul Samuel Sarr bi la ëttu yéenekaay di addu ko ni en tout cas coow li ba tey ma ngay daal di wëy ndax ginnaaw yenn ci ay enquête yoo xamante ni daal di nañu koy fësal donte ni sax ab atteem des na ko xaar tey jii waaye dafa mel ni dañu ko daal di dàqaat ba suba rek ci ajuma ji moom ëttu yéenekaay bi ne en tout cas Samuel jamono ji benn yitte rek moom la daal di def moom mooy di xool ndaka lay daal di defee ba génn ci fitna ak jafe-jafe yi yi nga xamante ni euh, moom lay daal di dund waxtu bi tembe ndax dana yomb ci moom am déet euh, moom ëttu yéenekaay bi di àddu ko ne rek bokk na ci la mu daal di fësal moom moo di dee ci kaso bi moom moo daal di gënal euh, di yëkkati ay wala mu wax loo xamante ni si méngawut ak la mu daan wax démb ak barki démb lu jëm rek ci mbirum Sarom Bandia gi ginnaaw ba ñu ko teewee ñu gën ko xam ci sniper ak yenn ci ay autorités yoo xamante ni mu ngi cité seen tur bokku na ci di Sakoura Ka ñu ne rek doom la rek ci ancien ministre ba woon Doudou Ka bi la ëttu yéenekaay di àddu ko ne euh, sërëm bànje gi dafa waxoon ni daf ko jaay ay armo boobu ëttu yéenekaay ne ginnaaw ba ñu defee enquête ba demoon ci këram euh, moom Sakura Ka fekkoon fi ay arme bokk na ci arme boo xamante ne amul autorisation bi la ëttu yéenekaay ne Sakura Ka ma ngay àddu ko ne arme yooyu am na ci yu bari yoo xamante ne ci papaam moom moo ko moomoon ndax ancien rek li nga xamante ni moom moo di douanier la woon waaye moom saa Ka bi la ëttu yéenekaay di ñu àddu yaayam femme la ak foofee rek ca West Foire en tout nañ ko ci mbiri eh, jamono ji turam ñoo ngi koy daal di dégg ci mbiram Sorom Bandiaky bi la ëttu yéenekaay di source a eh, moom moo ko daal di fësal le réveil dikkaat naan ñu li ñuy dund ci jamono ji yëpp eh, duñu ci seetal kenn ku dul rek njiitu réew ma woon président Macky Sall bi la ëttu ni en tout cas Macky moom kenn xamul nit la wala lu mu doon waaye problème yi ñuy dund lépp lu ci ëpp loxoom da ci daal di taqe ndax moom moo jël ay nit yoo xamante ni si tekkiw lu bari démb ak barki démb mu enregistré leen leen ay koppar yu takku du ay millions sax ay milliards la daal di nekk bile ëttu yéenekaay di àddu ko ne yemul ci réew mi sax ndax ay hommes d'affaires yoo xamante ni eh, bitim réew la ñu daal di fekk baax sax mag yi da leen doon yëkkati ay koppar yu takku di leen ko daal di jox eh, bile ëttu yéenekaay jàpp ni mbir mi it faaw rek ñu topp ko ba ci ca cappaandaw ga eh, bi ëttu yéenekaay ne du lool dong de ndax Aliou Sall di doomam bu ñu xoolee yenn ci ay business yi mu daan def ak oto ya mu daan war ba ci ay xale jigéen yu mu cas ku ca bëgg ay leeral na liir bi la ëttu yéenekaay di la réveil lu ca bari daal dina cay dikkaat moom ëttu yéenekaay bi moom moo ko daal di fësal yor yor quotidien ne li Macky def ak doomam loolu moo ci daal di gën a yomb euh, bu ñu sukkandikoo ci yor yor quotidien ak yenn ci ay xibaar yu mu fësal niki tey rek ci xëtam bu njëkk ni Farba Ngom moom xam naa ni dafa jàpp ni réew mi maamam moo ko moom euh, ba fu ñu rek tourné mu dagg ci suuf si bi la ëttu yéenekaay yi di àddu ko ni lu toll ci 573 euh, virgule 264 mètre cube bu moom la Farba Ngom am ci réew mi maanaam boo ko xaymaa ay junni junni ci ay hectares la mu am rek ci Almadi toll rek ci 16 mètre carré bu ñu ko xaymaa ci ay koppar mi ngi daal di toll rek euh, ci treize milliards loolu almadi képp la ko daal di am moom ëttu yéenekaay bi fësal ko euh, ni Farba kay dafa daal di rek euh, dagg ci réew mi ba daal di doyal noonu daal di dikkaate ci Bambilor ak fële nga xam ne moom moo di Biawa moom ëttu yéenekaay bi dikkaat ne du Farba képp ndax am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi leen di tudd ci mbir mu ni mel ku ci mel ni Ismaïla Ngom moom ëttu yéenekaay bi moom moo daal di dikkaat ci lu ni mel ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay Euh, l'observateur ma ngay àddu ci Vieux Aïdara ginnaaw rek ba ñu ko tegee loxo ab diir bu yàgg ci 2015 moom ëttu yéenekaay bi nee na lu toll ci fukki at yoo xamante ni euh, jot na ko daal di tëdd kaso digg naan na bay àddu rek ci nekkin ak anam gi nga xamante ni euh, noonee rek la ñu ko jàppee woon bi la ëttu yéenekaay ne lu ko téye woon ba tax ñu tëj ko lu toll ci fukki ati kaso bokk na ci coowal lekk doomi maître Abdoulaye Wade jëwoon di Karim Meïssa Wade ca loolee la ñu ko daal di jàppee woon l'observateur moom moo daal di rek fësal lu ñu mel ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay L'As quotidien moom dafa daal di dikkaat ci politique média ak rek secteur privé yenn ci ay révélation yoo xamante ni nitu daara yi dañu koy faral di def ci plateau yi loolee la ëttu yéenekaay bi eh, xëy fësal ni ki tey mu jàpp ni en tout cas nitu daara yi jamono ji eh, njiitu réew mi président Macky Sall wala rek président Bassirou Diomaye Diakhar fay eh, daal dina leen di jox bopp maanaam seen gëdd ci boppam la bëgg rek ñu gën ko yokk ci réew mi ci anam gi nga xamante ni si noonee rek la wàllum njàng ak njàngale mi di éducation di doxee moom laas moom moom fësal euh, lu ñu mel ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay l'indépendance foofee sax la ñu koy daal di euh, ndar keppe ak euh, li nga xamante ni moom moo di édito bi nga xamante ni taskatu xibaar yi dañu ko daal di def loolee rek la ci jublu moom moo di sampub laaj kan moo bëgg a wan ba sax mu faagaagal li nga xamante ni moom moo di presse bi loolee di ab laaj boo xamante ni si rek daal di nañu koy def ci bile yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante xamante ni ñoom taskatu xibaar yi dañu ko daal di dund ci réewum Sénégal moom ëttu yéenekaay bi eh, di l'indépendance moom moo daal di rek fësal eh, lu ni mel eh, dafay mel ni loolu moo daal di gën a fës ci li ëttu yéenekaay yi xëyee ni ki tey rek ci alxamis ji yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2024 way leen di ànd ak suñu programme cant ak gërëm da di ñeel di leen ñaanal kenn dalu jàmm بالسوء والخدمة انسى ربيا يا ابن الذي من أمه قد بقيا بالسوء والخدمة انسى ربيا بقيا بالسوء والخدمة انسى ربيا يا ابن الذي من أمري قد بقيا في الزمر والغلمة زابيا الذي من أمري قد بقيا في الزمر والغلمة